maa ngi leen nuyu di sant bu baax di gërëm ci mobilisation bi maa ngi nuyu waa Koungheul yëpp di nuyu monsieur le préfet du département de Koungheul di nuyu monsieur les préfets di nuyu monsieur les sous-préfets di beral nuyoo sama collègue Monsieur le ministre maire de la commune de Koungheul, mon frère Mayassine Camara, Monsieur le ministre, monsieur le maire, maa ngi lay nuyu bu baax la féliciter di la remercier sama tour à tour délégation bi ma àndal. su la nuyoo nuyoo naa monsieur le président du conseil départemental de Koungheul mon frère et mari monsieur Assane Diop maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant baax di ko gërëm rafetu mobilisation bi di ci kontaan di beral nag nuyoo responsable yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu tous les maires des communes du département de Koungheul di nuyu imam yi chef de quartier yi ak tous les responsables yi nga xam dañoo ñëw tey wuyu si suñu woote bi di beral yoo nag jigéen ñi bu baax di beral yoo jigéen ñi su ma ñëwee fii bu si jigéen ñi damay beral yoo nag sama sœur honorable député Fanta Sall di ko nuyu bu baax ko sant di gërëm c'est ma petite sœur Onora maa lay nuyu di la féliciter ci mobilisation bi di la merci encore une fois honorable Fanta Sall su ma nuyoo Fanta Sall damay nuyu Aïcha Mbaye au conseil des collectivités territoriales di nuyu Aïcha Mbaye sama collègue ma nekk ak moom au conseil des collectivités territoriales muy kenn ci man man tam maa ngi koy nuyu di ko félicité bu baax a baax. di beral yoon na sama sœur madame la directrice Socé Dione. suma sempe jigéen yooyu damay nuyu sama sœur Khady Khady di ko nuyu moom tamit moom tam muy ci ci jigéenu Koungheul suma la nuyoo nuyu naa madame la présidente du conseil consultatif des femmes Adja Dior moom dama la nuyu baax di la sant di la gërëm xaw a métti ndax sax dëgg le préfet maa ngi vraiment ñaaw am naa tey lu ma naqari dama bëggoon def discours fort fii à waaye seen rajo yi nag dafa koo baax te damaa xaw a sonn <laughs> moo tax may gàttal wax ji rek di wax mot de remerciement yi ma jëlee ci président de la république mu yónni ma ma ñëw fii département de Koungheul nuyu si jigéen ñi si leen seen taxawaay. jàppale leen ku nekk fa nga nekk parce que yàpp naa ne bu ñu développement social bu ñu émergence Sénégal defe naa jigéen ñi ñoo nekk en première ligne président xam ko na comprendre ko ne jigéen ñi leen placé au de développement wax jigéen ñi ma taxay bëgg Sénégal nekk un pays émergent parce que jàpp naa ne au cœur des familles les les femmes sont au cœur te jigéen ñi nag moo jàppale Sénégal ñëw tey indi ay financement indi matériel d'allègement waaye bu ñu waxee jigéen wax njabootam bu ñu waxee jigéen wax xale yi nekk daara yi bu ñu waxee jigéen wax jëriñ daara yëpp parce que ñooñu la ñoo jàppale suñu njaboot ñu seet si la te ndimbal bi nga xam ne président de la république moo leen ko jox andi leen ay nag andi leen ceeb andi leen diwli andi leen suukar pour ñi nga xam ne ñoo xale yi daara yi tey nag fii département de Koungheul indi 100 millions de financement jox ko jigéen ñi 100 millions pour jigéenu Koungheul bëgg leen jàppale bëgg leen dimbale parce que xam naa li ma exposition bi na ma ne ay jigéenu jàmbaar ñoo fi nekk ku leen jàppale jëm kanam ku leen toppatoo ak ku leen dimbale yaakaar naa ne si unité yi dina mën a nekk ba am na ay industrie transformation la pour jigéenu kon maa ngi leen di félicité di wax ne incha allah dinaa fi dellu si beneen bés su gën a mën a waxtaan ak yéen féliciter encore une fois toutes les femmes ak jeunes filles yëpp parce que gis naa tam exposition am na xale yu jigéen yu nekk ñu ci élection yu am solo nag ñu bëgg a jigéen ñi aussi ñu ci élection locale ñu bëgg a jigéen ñi am seen taxawaay bu ñu war a am parce que bu ñu mobilisation jigéen ñi la ñu politique bu jigéen ñi kon dans les instances ñu ngi ñaan ñi nga xam ñoo nekk sur les têtes de liste jox jigéen seen wàll jox leen seen cër aussi bu ñu def élection yi passé aussi dans les bureaux des territoires aussi jigéen ñi am seen place mu nekk paritaire parce que paritaire wax nañ ko dans les listes mais il faut que la parité aussi soit dans les bureaux aussi des communes kon on lance un appel à tous les dirigeants vraiment ñu jigéen seen kàddu jox leen seen cër ci li nga xam ne mooy gouvernance locale bi kon sant ak gërëm di félicité ñëpp di remercié ñëpp